su nit ki yëgulee tàngooru yaram mën naa génn ci biti laal ñeneen dawal kaar bi jël ab taxi te duñu mën a wàll Ebola yeneen nit waaye nit ku yaramam di tàng mën naa wàll ñeneen ñi Ebola suñu wéree ba ñu bàyyi leen Ebola bi génn na ci ñoom te war nañu leen delloo si seen njaboot ak seen gox te jàppal ni suñu amee xibaar bu dëggu ànd ak suñu docteur yi dinañu mën a aar suñu bopp ci Ebola